yépp loolu mooy seen yitte mooy seen jom comme ni ko Maodo waxee waaw wax yu am solo la dégg gu am solo la dinañu ñëw ca mu juga ci yi ci des waaye comme tey da di def seen ouverture colonie yéen président yi ak présidente yi mel na ni yéenay tëj colonie yi kon nag seen yitte la yéen président yi ngeen fexe ba seen tëj nekk xitaamuhu misk waaw ah, ah, esan mhm. wallaay ndeysaan ah dañu wax nii sunu parti bopp pur bureau politique bi sax ñu ngi ci yoon war a ñëw waaye dafa am sunu membre bureau politique mu di Amadou Seck tantam dafa génn àdduna fële ca Jobaas ay sànn mu xëy dem ca moo tax ñu xaw ndax moom la waroon àndal ànd ak ndeysaan ñu bàyyi ko xel ci ñaan mu mel ni nag liggéeyu colonie bi yëpp commencé ko ci collège yu yi ak mères yi ba ñëw ci cellule féminine ba mujj ci kade yi démb la ñu fa liggéey yëpp yëpp yëpp tey yéen président yi ak présidente yi yéenay mën a tax mu valable te it nag dafa laaj بنين taxaway نعم taxaway موسو في جب جرين جرين جرين جرين جرين جرين mais yàlla sunu borom buy wax ci alquran jaarale ko ci yonenti bi di wax ni li yazdadu imanan ma imanihim da fay laaj rek jamono bu ne tànk yu sekki woon nga def yitte séqi tànk yu ni toll wala yu ko ëpp mu mel ni coono mën na am fu mu yem waaye yitte amul fu mu yem lahu himamun لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر هذا سيد شيخ يوم نبني مني ينجي نفخ دي آه وننخ نينجل أدو نبي ñoog seen rakk-rakkat yee tolloo waxin la rekk waaw mooy baat bi mag ñi di def waaw buñ lay yónnee yàkkamti la te bañ la catu ni lay yéexal waaw mag bu yónnee doomam yàkkamti ko te bañ ko catu daf koy wax yéexal ah, ay fekk na mu gaaw la ci bëgg waaye bëgg ko catu ah, bu ko defee kon ñu nit baatu nasax bi ñu tuddee ko loolu rek waaw ah, ko defee rekk di yokk jom di yokk yitte di yokk taxawaay mu mel ni nag yàlla sunu borom moo yónni woon yonent yi yonent yi mu yónni kenn ku ne am lu mu la doon doye ba mujj ci yonent bi ñoo wax muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu boole li yonent den doon dox yépp mottali ko li ko yàlla doon doye mel na ni def na ko yàlla doye na ko mu jottali yónnentam mën nañ ko seedeel ni ballaga risala bokk na ci it li ko yàlla santoon mooy ndénkaane bi mu teg ci loxoom te ndénkaane bi mooy mu gunge jullit te sàmmale ko pas-pasam mën nañ ni kon boobu ci ndénkaane boobu addal amaana bu ñetteel ba nag modi bu masan laaj mu jaay bakanam sax moo ku mu am jaay na bakanam moo ku mu am mo xam daf ca dess mo xam dessu ca kon nak jaahada fi llahi haqqa jihad mu melni ba mu fa jógee yitam ñi ñëw gannaawam ñu di leen wax al alxulafa arrachidun seydna abou bakr سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي نعمت لنو خم وخنا نيوكو لنو من دفنا نيوكو كون واتشنا وخنا نيو دق دوخنا نيو يو مو ملني بنيو فجوجي نك tànk ak tànk jamonoog jamono siècle ak siècle ba yegg si tey ba fii ñu toog tey ñu koy wax Kaolack ku ci sa yéene sell boo dee kenn nit taxaw nga la mën ñu ci seen yéene sell bu ñu dee mbooloo it taxaw nañu lañu mën kon nag ñun bu ñu toggee fii tey di tudd seen mbaax wat ca watit la ndax Kawlax la woon ak Tiwaawoon Abdul Hamid kenn خليفة الشيخ احمد تيجاني لون موضو مۆچەدا داكورك شيخ شيخ أكسبتكو نیگار تي شيخ سكيريج یەگەل کو تي من خلفاء شيخي على الحقيقة لە mu mel ni ba mu nekkee ci taxawaay ba te tubaab bi nit ñu sellul jaxase leen ak maam Abdou Kane ba ñu xëy tere noddu ci jàkka ndax ni noddu ci jàkka dafa tànqal bañ ko waxee Alaaji Abdu Kan def ni ku am kudd doo lakk ah, mu dem ci waawoon wax Maodo Maodo ni ko ku am kilifa doo gàgganti ko ci mbedd ومد دم تي رقب فك جننتي الا يا رسول الله يا افضل الورى فها نحن في ضيق شديد التراكم نحن نيان نعم غنانغونا ولا نانغول نعم باسكو ني في داجي نيب سين سيت ولا خمان ني نيان دي نانغونا متا maamu bopp bi Cheikh Tijani yi na mooy seen maam ndax bu leen tuddee juróom ñaani maam yi mystique dafa am fu mu tegu yonent yëpp yàlla teral na leen mais li yonent yi bari bari yëpp kenn ca am juróom ñaari maam yi mystique mooy yonent yàlla Yuusuf weesuwu ko ah loolooy tax nag kon ñaan gañ nangu na waaye ñaan lu mu nangu nangu ñu delloo sunu xel ci sababu ñaan gi bobu moy sunu farata ñaan gi nanguna way sunu farata moy ñu bàyyi sunu xel ci sababu ñaan gi ñaan bu jëk ba ak ñaan bu mujj bi إلى من تكلني إلى عدو بعيد يتهجمني أو إلى صديق حميم ملكته أمري di tawatu yonent bi fofu la tambalé ba ñaan yàlla la mu ko ñaan yàlla ñaar ñi ma fi gis te duñ fi jóg wujju wu xolam dul féex ak noon bu pexem dul jeex te du fi jóg ila abadil abidin du fi jóg wujj xolam dul féex ak noon bu pexeem dul jeex ci la yonent bi ñaane boroomam mawdo ci lu mu ñaane faha nahnu fi diqin shadidi tarakumi ñépp a ngi yaat ñun ñuy xat rek wallaay loolu la moo da wax yeneen bi de ñépp a ngi yaatu ñun ñuy xat rek mais nag xat gee ñu jik jik ok xat gi moo ñu jik kon nag بعد بنيو وخون تسين انيفرسيتي رمضان ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ولا يزالون يقاتلونكم فات ني ديكو wujj yi ak noon yi fekk ñu di ko tal di leen xeex bu ñu jekkoo ngeen jekkadi jeex na wujj yi ak noon yi fekk ñu di ko tal di leen xeex bu ñu jekkoo nag ngeen jekkati xatta yaruddukum an diinikum in istataaw bu ñu jekkoo ngeen jekkati nit nag bu la réyee bala ngaa bëgg da xam lu mu fas nit bu la réyee بلا نغا بك خارل بخم لمو فك ودو لو تكفرون كما كفروا يلا يوح واكر يوننتي بني كو واتو لين لنغن من اي نيتنغ نلي ما خم لك سن خل بنيو سنون نيو واتي يالا بطرخ نونو نين دي واتي يالا بطرخ كم نو kon nag njaw des na xambin njaw njaw des na xambin njaw des na xambin de yaa gis wata tawxidi هل لك مطفئ والله جل جلاله مذكيك dafay laaj dégg xam nga wolof dana wax ni taal bu yàlla taal sànni ca mat moo gën fay ko waykat bi wax ni taal bu yàlla taal kenn mënu ko fay comme kenn mënu ko fay nag yow sa yitte mooy de ca sànni mat mooy njaw des na xam parce que il ne suffit pas rek muy tàkk bañ a fay mais bu tàkk-tàkk bi doyul pour ba leeral li mu war a leeral lu muy jariñ léeg-léeg nga am sa sondeel bëgg ci liggéey ngelaw li bari ba nga xam ni daf lay wóor ni boo gaawul rek sondeel bi fay noonu ngay def nag pour gaawantu bala moo fay fa ngeen toll mu mel ni nag léeg wujj léeg-léeg wujj def definam du aay l'essentiel moy nga xam liko fi bàyyi te yow nga xam li la fi bàyyi motax ci jamono ku xol aduna bi xam li dëgg ma lislaam te li ci upp di safan ku defani allahu akbar jakk rek man nako koo am na loo déggul ah allahu akbaru d'accord waaye wal islaamu millatuhu et d'accord waaye wal mustafa min jamii al xalqi atqaaha لولا النبي رسول الله ما عرفت حضارة ما عرفت حضارة شأنها الإكرام للغرباء وقلني ما عرف دين مما عرفت حضارة يننتي في المترل كنت جام بموي ديني يعني امنا بنين اونيفير بو امب دين بي كي لا يوننتي بي كلا يعني لا دوميني نيب waaw bi furs ak ruum di daanu kooku allahu akbari jàkka rek daanalu leen am na xadaara bu ëpp seen bos moo leen dominé moo tax ñu daan moo tax ñun itam nag li dëgmal lislaam te li ci ëpp di safaan bu ñu bëggee jëfanteeg ñoom foog ñu am lu ñu tëb seen tëbin Nous faire une association, nous devons nous faire une association. Nous faire une partie, nous devons nous faire une partie. Nous organiser un symposium, nous devons nous faire une